bokk na ci li ab jullit war a gëm màndarga yi alquran ak addis wax ne ñooy wane ne bis penc mi ngi jege si waxtu bis penc yàlla da koo jagleel boppam bañ koo xamal kenn waaye nag moom ci boppam joxe na ci ay tegtal yonante bi tam joxe ci ay tegtal manees naa wax ne tegtal bi njëkk njëkk ci wane jege bis penc moo yónni gi yàlla yoon yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax dafa wax ne bi ma yàlla yónni di des suñ digganteeg bis penc di ñëw mu ngi toll ne rek ni baaraamu diggutu suute baaraamu sànnikaay te gis nga baaraamu diggutu li mu sutee baaraamu sànnikaay bariwut kon yónni yónnante bi ci boppam rek tegtal la ci jege si bis penc mu misaale moom nag kasam si niki jant bi dafa jublu niki fenk jant bi fa mu daan soyee jant bi bañ a fenke fa mu daan fenke bokk na ci li wane ne bis penc jege na am na addis boo xam ne at-Tirmidhi nee na xasanum saxiix la te Ahmad ak asxaabu sunan al arbaa bokk nañu génne ko addis ba dane laa taqumu saatu xataa taraw xashra ayat tuluuhu shamsi من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج وخروج عيسى ابن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا من بلا بس بنت تخو ngeen gis fukki yi gante bi fenke fam daan soye bañ fenke fam daan fenke ak saxar soo xam ne dana yàgge ci suuf lu tolloog ñeen fukki fan woyof ci ñi gëm yàlla ba mel ne rek am soj metti lool nag ci ñi wedd yàlla ba mel ne day wésam seeni bopp bopp yi wow koŋ ak daaba joo xam ne dana feeñ ci mujjug jamono di wàqanteeg nit ñi ci kaw ndigalul yàlla أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون am na beneen daaba nag boo xam ne dañ koy tudde aljassaasa dana ko indi léegi ñu wax ni moom almasiixu dajjal lay àndal mooy nekk aw rejam li ñuy wax espion dana ko indi léegi yonent bi teg ci génnuk ya jooj ak ma jooj dañ ko tudd léegi ci kanam tuuti ak delsik xiisat bu mariam moom it daañu ko tudd léegi ak feeñu ku ñu wax dajjaal fenkat boobu dañ ko tudd léegi ak yetti luuf yoo xam ne suuf dana ko luuf maanaam dana ko xar modd li nekkoon ci kawam wan na ko ci biiram yonante bi ne faaw dana am yett yu ci fés ci xeeti luuf ga suuf di luuf di modd la nekkoon ci kawam yett yi benn ba day amee ci penku benn ba ca soowu benn bi ci jasiratul arab ba ci mujj nag mooy sawara woo xam ne foofee ci yaman ci àddan fa lay génne jiital nit ñi rek daa leen a bàyyi fu ñu fanaan mu fanaan faak ñoom fu ñu yendu mu yendu faak ñoom fi mu tolloogu nag mooy xam rek ne jant bi fenke ca soowu te bañ a fenke ca penku bokk na ci màndarga yi bis penc al mahdiyu addis da koo indi ay yoon yoon wax ne bu ñu demee bu mu jug jamono ba kaw suuf si yàqute gi doy waar lool yàllaa koy feeñal moom almahdiyu mu tudd muhammadu bnu abdillah boo ko yonante bi aw tur ak turu waajur ni muy fekkee suuf si mu feese ko ak ndëngte noonu la koy delloowaat mu fees dell ak maandu ci ay jamonoom sax la xiisaa ji dellusiwaat ba sax addis ba nee na moom mahdi yu dana jiite yonante yàlla xiisaa ak julli maanaam moom mu jiitu xiisaa topp ci moom ñu ànd julli ak mbooloo ma ciy ànd dellusi xiisaa ci àdduna daañu ko wax léegi dellusi xiisaa ak feeñuk mahdi mi ñu tudd léegi ak feeñuk ku ñu wax almasihu dajjal muy ku bon kuy woote ne mooy yàlla yett yooyu addis yu bare bari ñoo ci ñëw ba boroom xam-xam yu jëkk yi ak yu mujj yi maase nañ ci ne lu am am la kenn mënu koo weddi ku ko weddi ñu jàppe ko ab yéefar aljassaas mooy aw rek li ñuy wax espion almasihu dajjal moomu di woote yàlla bu dikkee day am daaba joo xam ne mooy nekk espion di ko gëstul xibaar yi di ko ko jottali moom itam lu ñu war a gëm la ne dana ñëw ci mujjug jamono ni dajjaal moomu di ñëwee buntub tuub ni ko addis bi indee yàlla da ko ubbi ci sow bi mu bunt bi yaatoo yaatu bu ñu demee nag ba mujjug jamono ba jant bi tàmbalee fenke fa mu daan sooyee li yàlla tëj buntub tuub boobu nga xam ne ku tuubutoon ba boobu boo tuubatee kenn du ko nangu ba tey sax ku gëmutoon ba booba su bëggee sos ak gëm gu yees kenn du ko nangu addis boobu dane inna allaha fataha baaban qibalal maghrib xarduhu sabhuna aman lit tawba la yuxlaqu xata tatluha shamsu minh yàlla ubbi na bunt ci wàllu soowu muy buntu tuub yaatu lool yaatoo doxub juróom-ñaar fukki at buntu boobu nag nee na li fekk jant bi fenkee fa mu daan sooyee kenn du ko tëj waaye nag bu jant bi fenkee foofu rek mu bokk ci màndargay bis penc yàlla day tëj buntu tuub boobu ku tuubati kenn du ko nangu ku bëgg a sos gëm gu yees it kenn du ko nangu addis boobu ak tirmisi yi nettali na ko an nasaayi ak ibnu maaja ku ci nekk wéral na ko buñ doonee ba bis penc ci jege si addis ba nee na yàlla day yëkkati alquran ak xam-xam kon loolu lu ñu war a gëm la ne faw mu am li ko yonante bi xibaare dañuy wute ci ndax yëkkati alquran ak xam-xam mooy yàlla fàttaloo ko ñëpp du amati benn dënn bu xamati dara ci alquran mbaa ci hadis am ñu ne téere yi ci boppam li yàllay far bu si wecc nga xam ne téere boo demati fekk ko mu wax tàll doon kayitu kese am ñu ne boroom xam-xam yi kay la yàllay jël seen bakkan ñoom ñëpp ñu dem ba jeex te nee nañ loolu lañ gën a jàpp ndax addis ba dane inna allaha laa yarfau al ilma intizaan walakin yarfauhu bi mawti ahli xata yaxtalifa arrajulaani fi lfarida fala yajidaani man yafsilu baynahuma mu ne yàlla du nuyu képp xam-xam ne ko roseet rocc mu set waaye day jël boroom xam-xam yi ba ñu jeex ba mujj am ñaar ñu juyoo ci masalam miraas lu ñu seet seet duñ gis ku leen ca mën a teqale wax leen la ca am dëgg-dëgg li ñu waxoon léegi dellu si xiisa lu wér la bu dee ci alquran sax am nañu ne wa in min ahli alkitaabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida laaya bu am ñu ko delloo ci ak dellu seem fii ci àdduna bu dee ci addis nag moom day am nett li bare bari yoo xam ne ñoo wane dellu si xiisaa bu dellu see du nekk ab yonante na ko addis ba waxe day bokk rek ci xeetu yonante bi mahdi yi mee ñu weesu woon sax dana ko jiite moom xiisaa ñu ànd julli mahdi yi jiite ko su faatoo itam moom xiisaa ñu denc ko foofee fa yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam almasiixu dajjaal moom li ko yonante bi waxtaane bari na lool daanaka itam julli gu mësaa julli dana ñaan yàlla musal ko ca mook mbugalum bàmmeel mu ne almasiixu dajjaal day feeñ ci mujjug jamono di woote ne mooy yàlla amee kiimtaan yu yéemoo yéemu amee àjjana ak sawara ku ko gëm mu dugal la ca àjjana ja ku ko weddi mu dugal la ca sawara wa dana dem nag fépp mbaa fu bare bari ba mu des màkka ak madina moom du fa dem te nit ñu bare bari daañu ko gëm topp ko moom nag dañu wax ne xiisaa ci boppam bu dellusee day fekk mahdi yu gaw dajjaal dajjaal xat lool bu xiisaa wàccee nag moo jël am ngajju daal di rey dajjaal moomu nga xam ne kon xiisaa mooy rey dajjaal mahdi yoo koy jiitu moom xiisaa mu ñëw fekk si ko nekk ci diine yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rey nag dajjaal moomu ci ndigalul yàlla wa fatxi yajuuja ak ubbi baaraasu yajuuj yajuuj wa maajuuj ñëw na ci alquran ba tàyyi hadis ba nee na ci xeet doomi aadama lañ bokk maanaam ay ñaari giir lañu yu bokk ci doomi aadama yi te bon lool mën a yàq lool yàlla nag ni mu ko nettalee ci suuratul kahfi waa ji baax jooju ñuy wax al iskandar ba mu àggee ci aw nit dañ jàmbat ko mbirum yaajooj ak maajooj ne ko noonu la neexal nga defal nu baaraas mu dox suñu mu ne déedéet naa ko def ngir yàlla wax nañu def bu lëggee baaraas ba ñu daal def baaraas boobee mu dox diggante nit ñooñee ak yajooj ak majooj baaraas boobu nee nañu yàlla da koo lëm nëbb ko ba kenn xamul fu mu nekk suñu demee nag ba bis penc ci jege si la yàlla ubbi baaraas boobu ya jooj ak ma jooj daal di wal dugg ci biir adduna bi yàqaate ko yàqaate boo xam ne niñ koy waxee lu yéemoo yéemu la kon gëm ne am na baaraas bu yàlla mayoon iskandar mu defar ko ba nit ñu bari ñëw ñu te bon muy ya jooj ak ma jooj mënuñoo jàll si bëtt baaraas boobu bi leen yàlla jëlloo bañ set nag yàlla taw taw lu bare bare boo xam ne mooy raxas suuf si ba suuf si set wecc yàlla daal digal suuf si nag mu sax sax bu rafet meññet mu bari lool wërsëg bari lool nga xam ne booba xiisaa moo fi nekk xéwal gi bare noonu barke bi bare noonu bu fi yàlla jëlee xiisaa nag damit ba di bëgg a tukkal àdduna day yebal ngelaw lu nooy wu jàppandi mu daal di jël ruu yi ñi gëmoon yàlla ñëpp ñëpp mu des nag ñu bon ñi nga xamee ne aay lu ñu dara ni bahima yi defante rek lañuy defante ñooñu nag waxtu wa adduna tukki ñooy des ci kaw suuf si ñoom la fi tukkitil addunay fekk bokk na ci màndarga yi jege si bis penc la addis ba waxoon ne balaa bis penc ñëw dana am ñetti xeeti luuf yoo xam ne suuf dana ko luuf benn ci penku benn ci soowu benn ci jasiratul arab lees wan nañ ko léegi ca addis ba am na sawara woo xam ne addis ba waxoon na ko léegi li bokk na ci màndarga yi jege ci bis penc ñu gis sawara woo xam ne foofee ci yaman lay génne jiital nit ñi ñuy dem dañ ko mën a mayu génnuk sawara yi foofu ci yaman jiital nit ñi noonu bokk na ci màndarga yi bis penc tiit nay dund yonante bi xibaaroon na ko am nañu wax ne fitnay dund mooy rek weddi yàlla am ñu ne lépp lu gàllankoor jaam bi ba tey ko taxaw ci tudd yàlla ak la yàlla bëgg rek fitna yi dund la lim ci teg tàppuk bàmmeel tàppuk bàmmeel mooy kañu dugal ca bàmmeel ba ñeenti côté bàmmeel bi ñëw ba sës ci moom rek bu dee di yéefar suuf si cër bu nekk naj koo naj ba nga xam ne day toll ne am wëñ cib sewaay ci lañ ko nettalee day toll ne wëñ mën naa am itam ñu ci rek wax nu muy tuutee tuuti guddee waar ak na jëmm ca tollu woon ak ni mu tuutee léegi bu dee yéefar noonu la ko suuf si naje ci wet gu ne bu dee gëm yàlla nag moom suuf si da koy dara ndànk ni nga xam ne moom la waajur wu jigéen wu bari yërmande di jële doomam taf ko ci boppam bu doom ci ñibbisee bàyyi ko fu sori fekk mu gëjële gisanteeg moom moo xam ku ñu suul la ci suuf si wala ku lakk ba xam wala ku aw rab lekk mbaa leneen kenn ku ci ne yàlla kàttanam àgg na ci rek tàpp bàmmeel googu dal ko ca na mu yelle ca moom kon yaar yi mu weesu léegi muy fitnay dund ak tàpp bàmmeel moom bokkul sax ci màndarga bis penc ci waaye daa bokk ci yonante bi xibaar ñu war koo gëm mbugalug bàmmeel moom it donte kooka nekkul ci bàmmeel ni ki rab yee ko lekk mbaa mu lakk ba xam mbaa ni ñeen ñi def lakk seenu néew ba mu def ab doom ñu jël ko mu naaw du tee rek bu dee ko yàlla nara mbugal ci gannaaw faatu ga faw rek mbugal googu dal ko ndax yàlla moom lu mu coobarewu rek mu am nam ko bëggee mbugaluk bàmmeel moomu bokkul ci màndargay bis penc waaye lu ñu gëm la ndax li ko yonante bi wax te it nee nañu julli gu mësaa julli daana ko muslu balaa sëlmal am na ci saxiixu muslim ak albuxaari yi mu ne xadaabul xabri xaqun mbugalu bàmmeel lu ama am la te ko def benn waaye ñaar la da ciy jublu ñaari malaaka yi nga xam ñooy laaj ci bàmmeel fitna mooy nattu rek maanaam ku dugg ci bàmmeel daal su bokkee ci ñañ war a laaj ci bàmmeel am na ñaari malaaka yu tudd munkar ak nakiir ñooy ñëw laaj ko kan moo doon sa boroom jan diina nga nekkoon kan moo doon sab yonante ni ko alquran waxe ak ni ko hadis ba nettalee bu dee ko gëm yàlla yàlla dëgëral ko mu tontu ne yàlla day mooy sama boroom muhammad moo doon sama yonante lislaam moo doon sama diine te it ki gëm yàlla buñ koy dikkal dañuy amee melowoo xam dana xam ne ñoom ñaar ñii ñooma te ñoo koy laaj ci loolu bu dee yëfarit moom na addis ba indee mooy day tontu ne hë hë xaw ma de xaw ma de mbaa mu ne leen yéen ñaar ñi yéenay saa borom ndax nañ koy dikkale day ñàng lool addis yi nettali mbirum laajum bàmmeel ak nañu defal ka gëm ak ka weddi defe naa dégg nañ ko ba tàyyi ci silkul jawahir am na addis yu ràññeel ñennat ne ñoom kenn du leen laaj ci bàmmeel bokk na ci ñooñu bu dee ci jihaad doon yëkkati baatul islaam ba faatu ca kenn du ko laaj ci bàmmeel ak ku faatu bëccëgu ajjuma mbaa guddik ajjuma ab lim la boo xam ne tudd nañ ko ay yoon yoon te sëñ bi boole woon ca mokkal xasiid ak jaawartu ku ko mokkal kenn du la laaj ci bàmmeel dañu wax ne bu jiitaloon wan nashri mujje wal xashri may gën a yell ndax wisaaroo gi mooy bu ñuy door a dekkal nit ñi ñu génn ci seeni bàmmeel dañuy tasaaroo xashru pang nag mooy ñu jiital leen jëmale leen fa nga xam ne fa la ñu war a pencoo yooyu moom daa bokk ci mbiri bis penc kenn ku ne war koo gëm ndax li ko alquran tudd ak li ko addis tudd place bi ñuy peesee jëfi jaam ñi ku jëfi yiwam ëpp mu texe ku jëfi safaanam ëpp mu ñàkk texe bu fekkee yërmande yàlla dabaatalu ko gëm place boobu lu war la alquran da ko tudd lool lool lu bare bare fa man saqulat mawaziinu yooyu dégg nañ ko ba tàyyi daa boole fii ay mbir mbir yoo xam ne yu ñu war a gëm la yu aju ci bis penc mbaa la njëkk bis penc ni ki wala bufta am na wal gu tukkal àdduna ak wal gi nga xam ne mooy dekkal am na sax ñu koy teqale ba mu doon ñetti wal wala bufta googu lu ñu war a gëm la alxuraan wax na ko ba tàyyi fa itaa nufixa fi suuri ak lu ko niru kenn ku ne itam jot kayitu jëfam te ñëpp a mën a jàng jotu kayitu jëf yooyu lu ñu war a gëm la te kenn ku ne nam jotee kayitu jëfam te lay xame fa mu jëm ku jotee ci ndeyjoor kuy texe la ku jote ci càmmooñ ku dul texe la siraat aw yoon lay firi waaye lu ñu war a gëm la ne am na foofee ca àllaaxira lu tudd siraat loo xam ne ku jëm àjjana mbaa mu jëm ca safaan ba ca lay jaar jàll ba ca këram te ñu wute loolu nag ci nuñ cay gaawe kenn ku ne na gëm-gëmam ak pas-pasam toll woon rek noonu la cay gaawe am ñu ca gaaw lool ba mel ne xefa xippi wala mel ne melxat wala mel ne njalaw wala mel ne ni aw naaru góor gaawe wala mel ne ni gëléem gu gaaw gaawe moom daal wuute lool am ñoo xam ne dañuy raam di batu am ñoo xam ne duñ mën a jàll dañuy daanu ca suuf te fekk na foofa sawara la bu far doon seen kër muy mbir yu wute wute lim ci teg tiitum bis penc moom daanaka mënesu koo waxtaane asaka ja sax mënesu koo wax ndax la dale ci fa ñuy dekkee ak fa ñuy taxawe ci menn penc ba yàlla àtte mbir yi ba ñuy dem àjjana dem ca ñooy dem sawara dem ca mbir yu tiis yu bare bare yu yéeme yéeme moom la ci alquran ak hadis di wax tiitaayu bis boobu akuk ragloom mëneesu ko melal bu ñu dajalee mboolem ko yàlla njëkk sàkk ci nit ñi bëgg ca mujj ci benn bàkk boo xam ne day tàlli ñaay bu li ñëpp dajee ñu andi jinne yi ñu war leen kapp ñu war a tàmbalee wàcce nag malaaka yi malaaka yi nekkoon ci asamaan si gën a jege àdduna ñoo njëkk a wàcc daal di wër jinne wet gu ne malaaka yi nekkoon ci asamaan sa ca topp muy asamaani ñaareel daal di wàcc wër malaaka yi leen jiitu woon ñu tegaloo noonu asamaan su ne ay malaakaam wàcc buñ dikkee wër këpp malaaka yi la njëkkoon a wàcc su ko defee buuxante bi day mettee metti ba mujj benn ndëggu rek ay ndëgg yu bare bare bare bare mën naa nekk ci kaw suñu boroom jege seen jant bi ba mu jege lool ful tàngaay yooyu itam ba jant bi gën a tàng bu baax nam tànge woon su ko defee ñaq wi nag day bare bari ba nga xam ne dañ ciy xuus kenn ku ne nag na ay bakkaaram toll woon rek foofa la ko ñaq way toll dana am ñoo xam ne xëy na du sori seeni dojar ñenn ña ba ci seeni mooca ñenn ña ba ci seeni bëti woom am ci ñu ñaq wa ñëw ba ci seen bokk am ci ñoo xam ne ñaq wa day ñëw ba nalaab leen kenn ni nga xam ne rek moom la bakkaar yi ëppante woon noonu la ñaq wi def ñu ne pat kenn du wax dara ndax raglu gi béréb bi raglu kenn ku ne am ak jaaxle lool mujj taxawaay bi yàgg yàggaay boo xam ne rek bu ñu ne woon siiwa ñu jiital leen yóbbu sawara te taxawaay bi moom jeex su boobaa yonente bu ñu àkk rek ne ko ñaanal nu sa boroom mu àttenu mbir mi jeex ku ne jëm fa war a jëm mu joxe ngànt ba ci yonente bi nag mooy door a ñaan yàlla mu tin mbindeef yi àtte leen kenn ku ne jëm fa mu jëm loolu mooy ramu mag ma ñu waxoon bokk na ci li addis bu wax ne ña nar a texe daañu gis yàlla ca bis penc gis ko ci gannaaw buñ duggee àjjana te gis ba day leer nañ mel na rek bu weer yu tolloo ci fukki guddeeg ñeent ni nga xam ne moom lay leera ci asamaan noonu lañ koy gisee moom yàlla gis gu fés a fés noonu la addis ba waxee ne sa taraw na rabbakum kama taraw na al qamara laylatal badr laa tudaamuun alquran sax nee na wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira ba tey bi yàlla ne lilladina ahsanul xusna wa ziyaada yonente bi daa firi alxusna ajjana firi ziyaada gis ga ñu gis yàlla suñ boroom ca bis boobee ak ca ajjana am na sax addis bu ibnu omar nettali mu ne wa akramuhum alallahi man yanduru ila wajhihi xudwatan wa xashiya mu nekk ci gën a tedd ci yàlla maanaam ka yàlla gën a fonk mooy ki nga xam ne suba ngoon gu ne mu gis jëmmi yàlla ju tedd ji am ram moo xam ne mooy mi nga déggoon léegi yonante bi lañ ko jagleel ramu nag bokkut ak moomu yàlla may na ko yonante yi ci des ak ñeneen ñu bare bari ci gaa yu baax yi kañ ramu nag faawu day nekk ku gëmoon yàlla waaye ku weddi moom kenn du ko ramu koo xam ne gëmoon na wéetaloon na waaye nag defoon na ay bàkkaar yoo xam ne tuubu ko kooku bu fekkee yàlla jekkiwul jekki jégal ko yonante bi mën na koo ramu mbaa kenn ci yonante yi mbaa kenn ci gaa yu baax ya mën naa am it kooka ñu ramm ko mu far bañ a dem sawara mën naa am itam mu dem sawara bu noppi ñu ramm ko ñu génne ko mën naa am itam ndegam gëmoon na dafa jàddoon rek ci xeeti bàkkaar yi buñ ko duwalee sawara dañ ko fóor rek ba mu set bu loola jeexee rek ñu génne ko mu ne yàlla nag dafa bari yërmaande lool ba hadis ba wax ne sax sunu boroom dafa amee téeméeri yërmaande benn ba rek la wàccee fii ci suuf juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent da koy denc ba bis penc boobee am na xadiisu marfoo boo xam ne al imaamu ahmad jëlee na ko ci abu hurayra na yonente bi nee na woon law yaalamu al muminu ma inda allahi min al uqubati ma tamiha bi jannatihi ahad walaw yaalamu al kafiru ma inda allahi min arrahmati ma qanita ahadun min al janna xalaqa allahu mi at rahma fa wadaha waxidatan bayna xalqih yatarahamuna biha wa inda allahi tisa wa tisxuun ba tey waxanhu aydan qaala sami'tu rasul الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من كي گم يالا لمي گم گم بو خمون لا يالا دنج ci mbugal day japp ne àjjana kenn waru koo yaakaar ndax rek lam xam ci mbugal mu yàlla denc yéefar bi itam bu xamoon la yàlla denc ci yërmande du naagu mukk yërmande day defe ne yërmande ji ñëpp ci xaj ak li muy weddi weddi nga xam ne ka gëm moom su xamoon la yàlla denc ci mbugal la muy gëm-gëm du tax mu yaakaara dem àjjana ki weddi nag moom bu xamoon li yàlla denc ci yërmande faaw mu rafet njot na rek dana am ci yërmande ja ne suñu borom daa bind téeméeri yërmande benn rek la wàccee ci diggante mbindeef yi ñu ci yërëmante mu denc nag juróom ñeent ko juróom-ñeent ba ca bis penc beneen nett li bi ne dëgg naa yonante bi mu ne yàlla dafa def yërmande téeméeri xaaj te juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent benn xaaj bi rek la wàccee ci suuf te xaaj boobu sax mooy réy réy ba nga gis yi amul xel mel ne daaba yi ñu yërëm seeni doom ba dañu yëkkati seeni we duñ nangu seen tànk dal seen doom benn xaaj boobu yàlla wàcc ci yërmande mooy réy réy ba nga gis daaba mi amul xel sax mooy xeeti bahima yi amul xel du ñu dëgg seen doom te di ko tey ñu mu waxee bayt yi mooy ñu mu waxee bayt yi mooy yërmande yàlla moom képp ku xës gëm rek te wéetal faaw nga dugg ci yërmande jooju yërmande yàlla moom képp ku xës gëm wéetal rek mën nga am yërmandeem jooju doonte sax yeyoon nga mbugal te amul kenn ku la ramu it jëmmi gëm gi rek yàlla mën na la caa baaxe nga dal di mucc waaye dañuy bañ nag ku sukkandikoo yërmandeem jiyaatu jooju tax bëgguñu boole ragal ak yaakaar ragal mbugalam te yaakaar yërmandeem ragal mbugalam ci di moytu lépp lu mu tere yaakaar yërmandeem ci di jëfe lépp lu mu dégle bokk na ci ñu war a gëm ci mbiri bis penc mooy kërug àjjana ak kërug sawara jàppale bi ci nekk kër lëgu yàlla defar di ko xaare ña ca war a dem bu dee àjjana ñi gëmoon la ko yàlla waajalal bu dee sawara ñi weddi woon mbaa ñu moyte yàlla jéggalu leen ñoom la ko yàlla waajalal moo tax mu ne àjjana kërug xéewal la sawara kërug texee di la maanaam kërug tiis la ak metit